ragal boobu sëñ sëñ Tuubaa rek wa man yuhibbuhu ilaa ilaa bëkkër bi wa nafsuhu fii suufli wa sañ sëñ Tuubaa di ay mbang mooy dafa nit ñi faral woon ngeen jël ñu moom it ko tàmbali nañ ko léegi wax nañ ci li ci jot a wax sëriñ bi neen yeggale ko di xamle ak murit lan la xam naa danañ ci lokk waaye di ko sëñ Tuubaa jàngaleel boppam dafay doy ci waxtaane ko lii xew léegi la xew toog ci sa kanam kilifa ñu naan la déglu noppil léegi la xew waaye ku xam yoonu murit ak taxawaayam jëmm ji ko taxawal ak ñi ko àndaloon ku ne xam ne nag kenn mësta toog ci kanam Serigne Touba di yëngutu wala ngay wax bu fekkee dañoo gëm ne li fi nekkoon moo fi ne ba tey jii nu jàpp ne mën nañ koo wute nu bokk te nañ ko doon wute te danañ ko am ak réer dugg nañu bu fekkee dañu xam ne wax nañu xel xalaatatul julli fa ni ma ko xamee noonu ngeen ko xam yéen ñëpp jëtta dol di dellu siwaat guddal la kon bu ko ci yàlla joxee jëmm joo xam ne ci bés boobu nga xam ne ci la julli juróom ñëw ci kaw suuf bu ko joxee jëmm joo xam ne mën nañ ne moom mooy julli ndax li julli génn nga ci ñoom mm-hmm. boo defee lu lislaam santaanewul def def génn nga ci li ñu sant boo defee lu lislaam yaa ngi ci li ñu kon sëriñ bi ñu ngi ñaan sa yéen yéen waxtaan wi mën naa gën a am solo waaye ni ko def ni yëkkati ko toog yëkkati ko toog mën naa am mu tënk bu bare bare ci xel yi ak li ñu tënkoon ci war koo jottali waaye ñu ndokkeel ci kër ñëpp di ziar ñëpp di sant yàlla bu baax. melokaan këris moom am yoonu nit taalibe bi jóge ko ci Sëriñ Tuubaa ko. Jalla Bara waxee mu noppi. kon ni nga ne seen seen seen tubaab ngi seen tubaab moom pour jaaree ko seen fan. bu noppee nag dinaa seen cee xaw gi kay jël kàddu gi. seen cee xaw bala gi daal ak daal maa saa ak loolu vendal amin ki yàlla wóolu mën ko waxee woon ak lan laa ci a teg mooy tur woo ma ko tuddee woon bi Serigne Saliou laa dañ ko tuddee woon sax nga ne ko bi sëriñ bi doon tuddee al amin bu ñu wul ne yëpp yi tarbiya la ah bis nga sëriñ Saliou làqu rajo Aara ñoom foofu al amin rek ko war a toog foofu jafe na doomi sëñ Tuubaa yëpp jeex sëñ bi njëkk a toog ñi fi nekk ku ci ay sët nee na ki ñàkk a toog boobu toog yi na Serigne Fallou six lettres la sixième xalifa Serigne Fallou ñu ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di la jox sa teewaay a baax si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 nopp yu ñu teg ci xasaay yi ku tedd gi te tey li ma seetlu ci ñaari njàng yi ba alxuraan di jàllee ba noppi ñu tegee xasaay yi dina la gis gis nga wax dama di jàng kuñ wax ñu ci mën a tegaat ñu déglu loolu mën naa bàyyi tam baax yéen ngeen wax ni yàlla moo ne ay jaam bu ñu dajee ne yàllaay sunu yàlla te ñun dañoo wax ne yàllaay sunu yàlla Sëriñ Fallu moom ku ne xam ne da koo ci xëyee war teral ni ñu koy terale wax nga ne yàlla ndax Sëriñ Fallu ku jëmul yàlla la ko jëriñ jëriñ su mastaqaamu istiqaama bi ci soo ba léegi ngir ñu dal istiqaama mooy ak dal rek waaw léegi bu ma laajtee rot rot ci biir dataay bi bu bañ bañ doon ñu rot sa kaw de sa tënd sa waa léegi man maa lay def yàlla na laaj yi dañu wàcc te bi ñuy wàcc baat yi lañ leen di wax bu leen ragal bu leen yàq na ngeen dig ci aljanna bi leen dig da ngeen jël daal ne nahnu awliyaakum fil hayaati dunya wa fil aaxirati bi ngeen tolloo foofu sax nee naa ndax yàlla bu sëñ bi ma rey xam nga yàlla bu ne ñu maa leen ñu maa leen ñu maa leen xëy ñu maa leen seen kii maa leen kii ma adduna la laa def naa ndax yàlla bu moo tax mu wax loolu waaye dara bu lii dama tànn ñu dem waaw sëñ bi jëlaat damay jël damay jël jël sëñ fasaaniqul murid man yanqalib ci hukmihi waxtan wala yartaqibu amaamahu waxtan fa inna saaka yamnahu min istayi ma hunaak sëriñ Tuubaa sa maam bi tedd ci dane ku sa murid dëgg nee na waxtu yi nga war a jàpp ne fi la àdduna yépp kon boo leen gis sëñ bi bëgg ñu téye jotaay loolu rek di ko téye bu baax tey jii dañoo war a jàpp ne sëñ bi yéen. di fexe tey jii moom li fi nekk lépp ñu war ko yóbbaale. sëñ Tuubaa nee na bu ñu ko deful xam nga lu leen di tere ñu naa ah mu ne li ngeen war a defar ci kanam dootu defoon. sëñ bi dañ koy déglu xanaa moom la sëñ bi ñu ko doon xool ko xool rek kooku ko doon def li mu bëgg a wax mu bëgg nga def ko li ndax isaara bi Sëriñ Tuubaa wax ne boo am na ñoo xam ne mënuñu tërbiya isaara boobu mën na ko gis ci moom minhum murabbin murabbin bil isaarati am na ñoo xam dañuy junj rek dañuy junj boo ko defee ci dem kon suñu demee ba yàlla def lii nga def dara ma mën a dogal yàlla Sëriñ Tuubaa nee na natt lay gëm bi tax na yàlla cinquième sixième point la ko def dogal yàlla dafa natt rek dafa am yu neex am yu natt waaye loolu bi yaa ngi dogal Sëñ na lool sa toogaay bii nga toog te Sëñ Tuubaa bi ñu ne ko léegi nga xam ne sa jotaay bu ñu toog genn kàddu mën na koo dégg mu fekk tax ko koo xam ne sori na lool. waxuma waxuma sax waaye genn kàddu mën na ko fekk tax sori bu njëkk ngërëmu yàlla ni ko daan wut ay xob lañ daan jël di ko laxasoo di lekk lu naqari di tëdd ci. ci àll bi te mënuñoo fexe ba am ngërëmu yàlla waaye nag bi Sëriñ Tuubaa ñëwee la ñu defal mu jege ñu waaye lu jafe la woon ndax danaa leen wax lu tax mu wax ko biñ ko laajee ne ko waaw yow ndax danga jël ngànnaay mu ne ah ngànnaay la moom du ma ko jël ñu ne ko lu tax mu ne yonent bee tax bi ñuy xànni naa lil jinaan an faswatin wa an hawaan dootuma jël ngànnaay dootuma doyoon ñu ne ko waa léegi ñuy def mu ne la naa taabal zaman man jamono ju neex rek ma yàlla jox ñu ne ko lu ciy tege mu ne maa xaboolil xidam yi te lu ma liggéey ñu nangu ko looloo ñu sore kat kon xam nga lu des ci am ngërëmu yàlla yar ku am yar am teggin di dégloo di nga àgg fi waaye rawatina nag amee yar am teggin di dégloo koo xam ne mat mat naa dégloo